assurance la providence defati teranga assurance bi leen di xeexal te di leen assuré ci anam di gën moo leen di indil yéen sëp produit bu bees tax di assurance perte emploi chauffeur PC assurance bi mooy tax nga mën ngay tàmbali beneen liggéey bu dul dawal gannaaw ba nga amee ay jafe-jafe bu lay teree dawal te nga jëlee ko ci accident oto garanti bi mi ngi toll ci ñetti millions teg suñu jël la en charge lépp luy frais médicaux maanaam hôpital ak ordonnance ba ci sax dëj bu fekkee da ñàkk sa bakkan dama ne ci xéwal gi si njëg bu amul fenn woote leen gaaw ci 33 889 90 77 maa ngeen dem si assurance la providence boulevard Djily Mbaye angle Béranger Perrot DP ba nag 43 33 Dakar. e Diallo jalo defal ma mburook fromage ci ni nga ma ko tàmbalee. sama waay am naa li gën a neex moo triangle de l'écran fromage u l'écran bu mujjee génn bàyyee ko ci meew mu neex fromage bu bàyyeekoo ci meewu l'écran neex na lool nooy ñépp te kat ñépp bii mooy fromage bi soog a génn mon triangle de l'écran mu ngi bàyyeekoo ci meew mu neex cafkam benn la fi te day jox mbégte seeni njaboot mon triangle de l'écran dara gënu ko neex te loo ci xamul amaale na boîte yuy def juróom-ñett ba ñaar fukk ak ñeenti fromage Aïcha ñam ko gaaw l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor tës tës ci FM di journalu faits divers yi suba su ne subi tere demi jotee altine ba àjjuma tës di xew-xewu jamono ci biir quartier yi tës di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeur tës ak Ahmed Aïdara assalaamu aleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Alaaji ci loo ne. Alaaji maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. mais week-end wi est-ce que du ma la seet si tamit nag Alaaji. wala neexee de. wala neexee de waaye xaal amu fa de. béy. béy itam amu fa de. xaal amu fa béy amu fa de. ganaar waaw ganaar moom mënees na ko lijjanti. ah. laaj moom boo koy seet. boo ko yëgalee mu fat gétt gépp. alaaj alaaj xam moom amu fa. alaaj ah. non waxee sama akulaay daala. Ah. ndawal ndawal la daal. Ah. lu bees lañ dul peese. saa bàyyi lam daan def daal laa bëgg. mooy day <laughs> ba gan gi dikk. mu ne ko ñëwal nga xool sa. sa ndawal li waaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan alaaj defal ma loolu ngir yàlla samedi kii na nam man yow la nam ma nga ndawal di lii lan la alaaj samedi samedi test la hmm. non dama ne samedi laa wax mais hmm. xu ba xam guddi yi soppeeku naa fi ci diggante bi wala dëgg hmm. non testé ma la de li may wax nii damay dëggal de samedi par exemple bu ma bu ma jógee ndàngaan sàmb samedi ma ma ñëw foofu nga rayel ma wenn gàtt alaaj gàtt alaaj nag ñàkkoo quarante mille yow ma jëndalee benn béy bu ndaw. waaw waaw man am naa la jëndal moom. ah la jënd béy bu ndaw moo la moo la gënal rey sa jur gi génn. waaw mu jur gi sax bu mu leen rey garaawul parce que ñoom moom du ñu ay reykatu jur ñoom du ñuy rey. c'est que jur yi suñu xeet yi ñëw mën a rey. c'est que jur. alaaj bu ci nekk am na tur. yow mii sax tudd naa la am xaar. alaaj man mii. nu mu mel. baa melu ne lu ko rek. lu ko ko mu ñëw lu ko ko benn lañ. mooy xar mu ñuul mi. weextaal nopp yu gudd. alaaji nee ko daa mel ni Lukaku waaye. yow daa weex daal noppi. keroog laa xool Lukaku di nga xool sa sam papa tuddee ma la yow. Lukaku dee alaaji cirib cirib gi mu nekk. man maa maa xamewul Lukaku sax. non alaaji Lukaku. il faut boo ko xoolee baax di nga xam tañ tuddee ma ko Lukaku tamit. da di am may faam rek. oui équipe ba. xam nga émission les grandes gueules toog nañ démb. émission les grandes gueules ñoom la waa Suisse dóor démb. Ah, seen émission les grandes gueules. ma kontaan ci waa Suisse. waa yow waa di la. bëgg a rey nit ñi les grandes gueules. moo tax it su toog ngeen. ah. lay dem leen toog waaye. lay dégg madame Diouf nee na Mantoulaye xanaa xamul ni. turandoom gi naawam ba nag ndax kër gi xale yi jëkk a ndékki nit ñi walaay wax na dëgg walaay wax na dëgg. ay waay waay waay ah, madame Diop toppatool ma sama turandoo bi de. ah kay alaaji man kay boo ñëwee bu soob yàlla. Hmm. dinaa dem ci sama am naa sama benn xale bu tudd Ngor. ma jël ma jël fa ab mbote. wala kuy mu baax. Hmm. bu cent mille ñu bàmbu xal la ko xam nga bàmbu. déedéet déet cent mille dafa bëri. déedéet may a may mun a baax may mun a may may mun a baax daf quoi voilà merci beaucoup euh, sama xarit bi Pape Sougou la professeur le philosophe euh, alaaj mm. grand Talla Sène maa ngi koy siyaar mm. akay Souleymane Thiam waaw mm. ah, waay alaaj Yacine Mbaye maa ngi lay nuyu waay Medina leen daal naa la xamal man daal wax naa la sama soxla waaw maanaam daal waaw léegi nag samedi Fall Bougane nee na boo maa ngi boo waxee Ameth nee ko bu tuddee rey jur rek yaram daw. kan waaw maa dafa bëgg jur moom it. dama ni déglu leen ma expliquer leen jur gi. Fall nag yow Fall yow am nga am nga sañ. jur gi. waaw ñi yooyu dañ fee ne. di nu di nu di xéewlu ci ñun. Mm-hmm. dégg te yàlla lu mu sàkk ñun ñoo ko ci gënal dégg loolu ndax saa maam te léeg-léeg mu neutre léeg mu màndu lool alaaji nga dégg ñu naan ndeysaan moom day am bukkee ko fi lekkoon daaw moo ko fasam ba dégg mm-hmm. léeg yooyu waaw léeg-léeg yooyu jàpp ñu alaaji mm-hmm. ventilateur du ci mën dara dégg nga du ci mën dara. dégg nga. ñeeñ ñoo ñeeñ ba maar di tali. ba boo yeewoo doo yeewaale kër kii. Mhm. yooyu ñin dañ wàccee tamit pour. pour yooyu tam ñu xewlu. ak kër googu sàcc ba demoon di yëndu. <laughs> voilà ci bët ba voilà. <laughs> te naa caat laa muutu bët muutu bët ba. ka mujjee judd ca kër ga. yéen ndox buntu ba ca biir ubbeeku na. non benn porox ndol duggoon ci bët bi. ñu ne waa kër ga ñu ne waa kër ga dañ leen di tooñ ñooñu dañ leen di tooñ alaaji sàcc ba laa lay wax nii sama malheur xamul woon ne ñi famille bi nekk kenn du leen jege. même kon bi sequñ fe kenn dara. bu leen di daw dem ci marché bi gën a jege yëpp sa jëkkër non non non dañuy dem ñoom ci ay marché yoo xam ne xoolal ay inconnu leen kenn xamu leen fa <laughs> ñu dem dugg li ñuy dugg ndànk ñëw tëju seen biir kër muy dof dof lu naan dee sàcc dem fa alaaji ca buntu ba la yërndoo laa lay wax nii ba benn bët ba naan fi caabi ji di jaar di jéem a yërndu di xool nii ñu muucu bët ba. xam ne loolu ñun de ay yuuxoom ñu ne ko laay la ay waaye doom tàggoo. tàggoowul waaye nag comme muucu rek nga caam. alaaji ku yërndu ñu muucu sa bët yow boo dugg nu muy demee. ay jax <laughs> xale yi nga xam ne ay noct ay noctambule lañ alaaji duñ nelaw. wuy ma moo moo xale yi. di seetantele waaw di ataaye. ay trois am na kuy dox di ñëw. ci leen ñu jàpp nga kaay fekk ñoom ñoo jàpp kaay. ci leen ñuul met ah, kii kay tey moom lum mu bon bon moom moom deret moom dinañu ko laal. moo tax dañu ni bët bi di yër caat la ni bu muus. di ko xëccee mu mucc benn bët ca koñ bay daw. que itam cat est-ce que itam cat di xanaa xamoo caat yi ñooy gën a yeew mais taaw yi ñooy ëpp doole. xam nga caat yi moom ñuy judd moom alaaji day fekk papa yaay. waaw daanaka seen doole moom mooy loolu waaye taaw yi. loolu moo tax ñu jàpp ne caat moom gis nga caat alaaj caat yi gaaw màgget gaaw bi jaaw caat day ba pare yeew <laughs> yeew sàcc de moo caat li de moom moom xel bi yëpp ci muucu la ko yàlla yëpp <laughs> la ko yàlla am yaakam caat naa muucu de alaaj la ilaha illallah <laughs> kër ñooñu ñu muucu ku muucu alaaj ñu ngi jàll suñu yaay aja ay dem ñu ngi koy jaale suñu maam bu wér. wallaay ndeysaan. laay démb lañ ko yëg. wallaay hmm. ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. ay waay yaayu Aïda Mbodj moom lañ ñu tàggee démb nañu moom moo fi jugee. Hmm. suñu maam jooju. yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe bi ci ay seeni wujur sallallahu taala alayhi wa hmm. doom ji doon jàmbaar. waaw waaw doon jàmbaar. dëgg dëgg fa yàlla daal doon doon doon na daal jàmbaar na doon na daal jigéen jigéen joo xam ne daal ci dëgg dëgg daal jigéen ju mën góor. waaw waaw. danoo xam ne keroog ay élection locale u 2009 yaag alaaji 2014 la ilaha illallah wallaahi ay la ca borom tubay mu woddub sërëb takob ndigam takob musóoram alaaj mm. jàkkaarloog ñoom daa dóora dóor dóor leen ba boole ci waxee mu ne la waa kër Macky moom du ma leen bëgg kii ci bawol di leen dal ndax sama jëkkër ji moor laa cay ruus ma ne ko ruus ruus bi dee bi arbi ne prib xooloo ci moor ndeysaan ndeysaan di leen yëkkati ba ci kaw teg ci suuf wàccee ci suuf Abdoulaye Daouda ne ko mënoo ngarale hmm? doo nekk fii nekk fee ah mooy loi bi ñu fi kii woon conseil département eh? waaw waaw waaw jàmbaar la mhm. lépp nag ca yarga la waaw lay ndeysaan yarga la lay ndeysaan. jaaxal waay suñu maam jaaxal taxuñu wax ko nit waay suñu maam maam waay yàlla na xare àjjana waay. amiin may jaale itam waa waa Mbuur. Mhm. ak waa Kër Songo. ak képp ku bokk ci tariixa murit ak képp jullit ki nekkoon représentant wu Serigne Saliou. ci Mbuur Serigne Baye Diop. Oh. dafa waa Kër Songo la dëkk. fa la fa la fa la dëkk. ndeysaan dem ci daara Serigne Saliou. Serigne Saliou ber ko jox ko daaram ji nekk Mbuur. ba ni sëñ Saliou laax ko suñuy bët sëñ Cheikh uuf ko bokk ci ñi gën a jige sëñ Saliou liggéey liggéey bu am solo ci wàllu diina sëñ Mbaye Diop ndeysaan bëkk dem nag la la làqu ci Touba yàlla xaare aljanna yi gën a kawe itam dëgg yàlla tiis bu metti la yàlla gi mu baaxoo ak uuf gi mu uuf njabootam mbokk gërëm na mbokk deret gërëm na mbokk tarixa gërëm na sëriñ gërëm na baax ku yaatu ku yaatu ginnaaw. jaale leen yàlla xare it euh, Alaaji Papa le monde sportif. président fédération sénégalaise bu randonnée pédestre. sama tonton. Libaas Njongu di ko jaale ndeysaan sportif yëpp waaye tam di ko jaale waa Cambérène di ko jaale sama ñoom yaay ndax man sama nijaay la. di ko jaale soxna doom yi ñoom tonton Ablaye tonton Gazo sport bëgg lu yomb su ma ko waxee ndeysaan mu day reetaan ndeysaan ndeysaan moom la ndeysaan sport bëgg lu yomb noonu laa leen di woowee ndeysaan baax mënoon ree bëggoon àdduna yàlla na ko yàlla xaare aljanna fi miin tonton di baas jonk waaw njiital euh, douzième gaynde ndeysaan mhm. nga jaale bu wér ñu ngi ko koy jaale waaw man moom tan Maguette Seck ñëpp njaboot gi ñëpp daal ñoom tan day mbay Bari merci beaucoup président supporter yu Guédiawaye football club merci. Hmm. merci Souleymane Fall ngi koy sant bu yor di ko gërëm Pape Moussa. waaw merci beaucoup merci maman Ndagge Alaaji moom ñu nuyu. maman Ndagge. incha allah waaw waaw jërëjëf jërëjëf Euh, Alaaji. waaw. ah. day tasu tey bii. Mbadou. affaire. Eh, Sike maa ngi lay nuyu Sike. Eh, Sike. Eh, moom noonu. ah. waaw. tur ne ci àdduna yëpp après moom boobu la. ah non non non non mais Sike lañ koy woowee dafa Sike nag. <laughs> càmmiñu Soda Marème Ndiaye. ak Sike. ah si ke borom ASC mag bi. ak àdduna bi yéen. non non alaaj bàyyi jàmbur. Ah, léegi. ah. te su tey ndekete xariñ rayon daaw ndeke ñooy dellu si waat. lii la. ah oui. dañuy am na lu mu bëgg a wax de. billahi am na lu mu a wax. xariñ man ma ne ko ndax dañuy xariñ xariñ rayon daaw nii. ñooy dellu si waat. waaw boo ñëwee si Elsi doo ko yi <laughs> ñoo delluwaat bis fekk leen fa <laughs> la wuy ma fi kenn am droit fanaat fi yi ne la kenn amul droit julli fi Mustalifa. <laughs> fekk dañ koy for. xeer yi ñooy dellu si. xeeru jamono yi ni ñu bëree. ni ngi leen gis nii ñu sànni loolu. Moussalif nga jullee timis ak gée. wuy ba <laughs> yàlla gaaw leen gaaw leen. waaye waaye Arafat doo fa jullee timis. waaw Arafat. <laughs> wala kilo fii rek. <laughs> loolu cosaan daa yàgg ci mim réew. kenn mu bëgg wax en tout cas xar yi rayoon daaw. waaw ñooy ñëwaat. waaw ñoom ñooy dellu si waat. yéen tabaski la waaw dañuy dellu si waat papa Mbaye Ndiaye aseg depuis États-Unis ñu ngi koy nuyu. Papa Mbaye Ndiaye ñu ngi lay nuyu xarin rayon daaw noonu. eh man de sama a ñëwaat moom. dañuy génn feneen. yow doo dox ba ci ak ñu il tey laa daje koo xamante ni nii gars yi fële Sali. daan nañoo diw. moo mën sóor Diop benn benn. non yàlla daal lu mu bind nekk ñaar ak. ñaar ñu dee ñuy ñëwaat. dañuy ñëw. ma de kon yàlla moom bi yoon su may juddoo na fexe moom ma juddoo Sénégal. <laughs> Marème si maa ngi lay nuyu xoolal maa ngi fii ci Texas. non ah. mais alaaji maa fi daje ak benn waay. ñu ma wanee ginnaaw damaa wàcc. dama ko toog ma ne kii Mansour Diop la. benn benn benn. benn benn benn. El Hadj Koka ma ëpp chance kon. ñu ne man juddoo Texas. benn benn benn benn tax ma jëppeelu ma jëppeelu. mais xanaa sénégalais bu fa dem la non non non pourtant américain la sax de mais benn benn benn ngeen. <laughs> mooy sëggeelu si. Lukaku day dellu si waat. ah Lukaku <laughs> bay des. na nga fexe ba buy ñëwaat bul bul bul ñëwee fii ay ay ay Guinée Bissau ak Gambie. <laughs> nee na ma bi laa sugu laa wax nga dëgg booy um, njuumte gi mooy juddoo Sénégal. <laughs> man dëkk boo xam ne président yi dañuy jël transhumants yi def leen ay coxeur. Ah. ay waay Lansana Gagny Sakho mii tamit. Ah, li wax ni ëpp na di. benn interview laa doon seetaan léegi. nee na

te mu ci sëriñ fu mu toll nii est ce que man yaa ngi may eh, waaw te dinaa leen expliquer lu tax. non expliquer gis nga bët yi ma xool non El Hadj léegi nga ñu eh, xool mat sa France beeg Suisse démb. Mhm. xam ni ñëwoon ñoo ñëwaat. lu la neex defal ku bàyyil xel démb ci France Suisse lu la neex defal. Eh, <laughs> ku ma gëmul ku ne lu la neex defal. waaw. yaa ngi junj rek. non baax na. mais El Hadj léegi yaa ngi junj rek il faut mu gën a leer. gën a. sinon ñun duñu la duñu la ah, ah, mais baax na. yaa ngi junj rek dañ dem rek. day leen voté ay loi rek. kon nit ñi juddu woon. nit ñi dem dañuy ñëwaat. loi yi demoon tam di ñëwaat. ndax am na benn paawu séeréer bu ñu tuddoon njuun seen gaskatu teen la woon. <laughs> Pa Ndioune Sène mos na ko. waaw sama ñoom papa de. ah, ah. <laughs> nee na ko ñun dey boo amee doom mu dee da ngay dag nob ba boo daggee nob ba boo amaat beneen doom nob bu dag bi la indaale nga xam ni ki demoon mu. <laughs> waaw mbokk am na ay boo amee doom mu dee dag nob ba. yàq émission rek <laughs> mu ne. yow Linguère sama ngay dugg nag léegi. sëñ bi nga ne sama taaw bi mi ngay suppi tur wi di. dindil dindil dindil dindil dindil dindil. waaw ndax lay <laughs> yi neen ko ay waay gi lay. ngóor nitu nga. xam nga lu toll ni waa kër ku tedd ki. waaw di wàcc ci tund yi. lépp kër yëpp. ne sa kër gii la ñuy wàcc. te bokkoo te bokkoo leen sax diine. nga war xam ne yow yàlla may na la. mo santal yàlla. mu ni. santal borom bi. mu ni ah <laughs> <laughs> mu ni ah. kay leen la. Hmm. jóge ci li ma ne rek. te fekki leen. teraanga kay. teraanga koy fay. <laughs> waaye. doo ko demati de. ah. dellu fa nga jóge woon sa ba nga amee tànk. <laughs> dama nga xam ne alaaji 48 heures rek. ko ñu bëgg a faat lu tolloog juróom-benni nag. ci diggante ndekki añ reer. ci géttam gi. <laughs> ne ko sëñ bi. kañ nga ne kañ nga bëgg a yiwi ku ma waajal sëñ bi ne ko kañ laa ñëw du tey tey la la. talaata tey àllarba. àllarba laa laa ñëwoon di tey la la àjjuma àllarba. te ajuma samedi dimanche altine talaata àllarba alxa alxamis yeegul maanaam fan daal lay dem jugal jugal jugal jugal jugal ñibi suñu ah ah yow yaa ngi seetlu li ngay wax ku am chance mu ñëw toog ci yow du chance dara du maa jiblu woon maa ni yow li ma la defal ci teraanga sa sa doom ji sax nga xam ni euh, maa tudde woon ku tedd ki dama ne la woon ngóor jigaan la tudd dama ne woon fay la saa bàyyi laa ko tudde ngóor jigaan fay dindil <laughs> delloo ko ca dindil turu ko ah yow yaa ngi bëgg ñàkk taalibe sa doom ji jigéen ji nga xam ne tudde woon naa ko ku tedd saa ndey laa ko tudde ñii laan baaxum fay delloo ko tax te ngeen jug te dem. Ah, yow kat yow kat nag yow soxna sax naa gisoo tur bi moo ko joxoon ah. dama Thérèse Faye lay wuyoo delloo ko ca. foofu. di dindil dindil dindil saa jigéen bi laa ko tudde nga delloo ko ca delloo ko ca. Thérèse Faye la ko tudde dindil dindil dindil Thérèse Faye laa ko tudde ah. moom laa may njëkkee lu njëkk. na rek moom laa may lu njëkk njëkk. yow mi aw nga yow mi aw nga yoon yoonu yoonu alku kat nag wala yow nga yor eh, yoonu alku yow mi ñoom ñaari fan jeexal sàggeti gi rey ñeenti nag jugal jugal jugal jugal yow mu bëggoon bu ñuy daje bu ñuy daje àllaaxira mu dugal la àjjana bal eh, yaa ngi may toroxal te dindil dindil dindil dindil jugal te ñibbi jugal seen diine jéeg tarixa bi moom bu dee lii la dellu naa ca la ma nekkoon dindil yow tuuboon nga de delluwaat naa ca du ma jiblu woon maa ne Euh, Alaaji. Fallou Touré maa ngi lay wax Fallou. waaw. Alaaji nga ni xaga daaw yi ñu wax ñu wax lu tax de. waaw Mouhamed Mbaye euh, suñu conférence bi le huit juillet la. litaan ci kanam euh, sama xarit bi policière bi princesse nee na yaa fi nekk di kunkaande kunkaande li fi wax ay xaru daaw yaay ñëwaat. doon eh, nañ ko affaire kunkaande sax yow eh yow li may wax nii ne la yaa ma xaru daaw loolu ni. yow nag tey nag man maa lay jox nag tableau jox la stylo nga taxaw fii di bind. di montré ñun xamuñu ko de alaaj parce que lii nag moom. moo raw moo raw théorème bu Pythagore ba. waaw li nga wax ni. Euh, Simer. bu fekkee li nga wax ñi nga ko. da nga koy leeral bu fekkee nag. dinaa ko leeral. bu fekkee nag ki nga xamante ni moom la concerné. léegi. kan la concerné. koo koy concerné kenn. Eh. kooku nga ne xaru daawee. xana ku jiite ak ministre bi ñu dénk wàllum xar yi Ali Sale Diop loolu rek la. waaw ministre élevage ah, alaaji boo. béykat bi yëpp naaw. amit tamit ngi jaay xamoon naa ko suñu yaay. Ah, li mu def kenn def ko. après moom. Ah, léegi Samba Ndiobène. waaw Samba Ndiobène day moom bii di wax dëgg yàlla. léegi bii di doxagul. kii da koo xamul. léegi xëy léegi. waaw Sumer déglul ma ndaw sii de. ay li ñu jot ci ay téléphone ak ay message di ko kalaame. ba ndekete am na ñoo xamante ne nii ñëw nañ fi faf ne danoo bëgg wax ci moom te moom xale la. iPhone wala photo lay yor. waaw wala yóbbu la fa. booy loué. waaw wala appartement. waaw nga jox ko sa avance. waaal keroog nga koy yëgee teg bët. Hmm. fukki doomu aadama ak ñaar vingt deux la xoola sax. une dizaine. vingt huit personnes. allahu akbar. ñaar fukki doomu aadama alaaji ak juróom-ñett. waaw ci ñu jot a plainte. ci ñu jot a ak ñoo xam ne xëy na plainte duñ te demuñu rajo ak télé. ndaw si benn système la yor ci Facebook bi. waaw réseaux sociaux yi la ne. waaw location lay def en ligne. ngeen wax nga jox ko sa xaalis mu won la appartement bi lii ak lii fictif. appartement bu musul am. waaye de alaaji nag fi réew mi toll Ndakaaru ni mu xatee déplacement ni mu yombee. ni ma lay yónnee nag xaalis nag ci appartement. dina dem ànd ak yow ba wan la. day dem da lay wan foo xam ne waañ baa pareegul mu la dans 15 jours nga ñëw waañ bi dina pare. waaw chaque jour bi mu lay wan mooy waañ bi pareegul. pare yóbbu la këram. léegi nag ñii xam nañ seen kër. ndekete fa mu lay wan këram la. xam nañ tam ci këram. am na ay doom doom ji muy nàmpal nag la la daw ak moom mais beneen doom bi mi ngi fi. Mm. papaam boo waxee mu ne la man xam naa ne sama doom jubul waaw mais moom léegi ndaw si anamu jubul jëkkër ji jubul ba pare ndaw si jubul waaw loolu laa wax waaw aji kay wax na ko nee na moom ko si ko mënul ah, non non non alaaji euh, Sumer jox ñu plaignant yi jox ñu plaignant benn femme la daal bu nekk HLM euh, 4 la moom dalay jël si comme c'est que ne day loué studio léegi moom dalay jël numéro di wax ak yow comme si que ne jëkkëram mooy wax ak yow boo ko bëggee woo dalay ne bu euh, doo ko woo day jël euh, benn numéro envoyé la ko ngay wax ak moom whatsapp mu envoyé video bi mais dalay tegtal ba nga ñëw ba si kër gi mu won la studio bi yépp encaissé sa xaalis bindal la benn décharge yi génne carte d'identité jox la nga nga foto ko sa portable dem mu ne la léegi wàññi moo si des dangay ngay bàyyi ba première te bu la koy def dala koy def euh, ay la 15 la lay dóor pour que nga mën a toogaat 15 jours pour xaar le premier pour waañ bi pare. man ba ma ko joxee sama xaas mat na 4 mois naxata man li ma ko jox sama xaas toog di xaar naxata am na ñeneen ñu ma ko def plus de vingt 28 personnes. mais depuis boobu nag man ba ma toogee bu des lu dul tuxu ma dem fa pour dem euh, jëli caabi bi ma fekk fa jëkkëram mun a ma demal nga def plainte ndax kii du yow rek la doo na ñu ba ma demee di def plainte ki doon bind plainte bi HLM cinq si police bi daf ma ne carrément ne ma gël bi du yow rek la ko def def na ko ñii nii ñëpp ñëpp maa leen bindal plainte bi. après ñu déposé suñu plainte naxata man euh, naxata moom liste la defoon avant muy dem jox ko jëkkër ji. léegi nag liste boobu moom instant bi dafa dem yoonam kenn gisu ko jëkkër ji tamit ñu ngi koy laaj nee na xamul fu mu dem. xanaa xanaa xanaa amul ay doom. am na ay doom am na benn doom bu muy nàmpal nii am na ñaari doom. ok continue léegi nag moom dem nañ ay famem Euh, tegtal nañu si ay famille yu nekk euh, benn tali jumaay murit famille bi ñëpp xam nañ leen ñëpp xam nañ leen dem nañ ba foofu di ko waseet gisuñu ko actuellement ni mënuñu la wax fu mu nekk parce que def nañ suñu plainte dem nañ brigade des recherches dem nañ fépp def suñu plainte man lenn rek moom ci metti euh, du dara mooy étranger yu mu ko def parce que kii ma àndal nii toog nii mujjee bi dañ koy génne gaalam nii amatul sax fu mu nekk parce que def na ko ay étranger yu bëri man dama waxoon damay bàyyi mais bu ma xoolee ay étranger yu mu ko def moo tax nangu ma bàyyi mu sedd ñun mat nañ vingt huit personnes. tey tey si suba da demoon police yéen vingt huit personnes waaw tey si tey suba dem nañ police bañ demee pour defaat beneen plainte centrale pour que rek ñun ñu mën ko trouver pour gis ko parce que lii dafa yomb xale boo xamante ne quatre vingt dix huit la juddu mi ñu sëy fii HLM 4. yore jëkkër yore ay doom. yore jëkkër yore ay doom am na doom bu muy nàmpal actuellement nii mais ba muy dem yóbbuwul doomam boobu noonu. yóbbuwul yóbbuwul euh, yeneen doomam yi ku muy nàmpal la yóbbu kon ça xale bi fu mu nekk xam na fu mu jëm bu doon bu doon da ko def benn personne amul problème mais vingt huit personnes la ko def. bi ngeen demee police euh, bi ngeen demee gendarmerie ñoom dañ leen dañoo oo jëkkëram. ñoom woo nañ jëkkëram laaj ko jëkkëram ne carrément moom ba mu yëgee problème bi ba mu yëgee problème bi euh, dafa foogoon ne problème bi arrêté na parce que yàggoon na di ko def muy mu wax na ko kan ak kan laa amel mu bindul ko lis parce que actuellement nii ñun police daf na nañ toog xaar mu def enquête am mais li ma si gën a métti mooy am na si ay nit yoo xamante ne dañ leen génne actuellement nii dañ leen génne nii. ay SDF lañ quoi sans domicile. voilà loolu la am na si ñoo xamante ne jot nañ dem ba si kër gi sax fanaan si kaw terrasse bi foofu. mooy kër jëkkëram si boppam. kër jëkkëram toog foofu noonu fanaan si kaw terrasse parce que amatuñ fu ñu jëm ay étranger lañ ko def. ginnaaw yëpp ay étranger lañ. ok te moom Facebook lay lay nekk benn compte lay yor wala compte yu bari la. moom benn benn non yorul benn compte ay compte yu bari la bu si nekk nii da siy tudd ay Pape Ndiaye bii mu tudd si nii beneen bi mu tudd si nële mais moom numéro bi doo ko si jot moom danay envoyé message wala mun na la wàccal sa numéro fii wala mu jox la benn numéro numéro boobu mooy numéro ñun nag yor nañ ay vidéo yor nañ ay photo yor nañ photo photo euh, copier carte d'identité ñun parce que bu ngeen bu ngeen boo demee bu bu waxtaanee ak yow ba ngeen juboo ci prix da oo ba këram defal la ko defal la décharge carrément signé ko jox la photocopie carte d'identité lay def kon moom mu ngi ko doon teg ci yoon ba foofu moom mu xam na c'est que lu tax dóor bi mu yomb mooy da kay teg ci yoon yow da naan gis nga famem ay doomam mii nii kii mun laa rëcc ba pare jox na la carte d'identité nga photo affaire yooyu noonu mu na la benn message pour wan na la ne yow da ngay waaj a loué si fi affaire yooyu xam na kon kooku da ngay naan man dina ma ko jox loolu ngay jàppee naxate moom mu ñu continué woon di ko def naxate moom am na si ñu ko jotoon naan sax ba mu fay leen mais 28 personnes yi fayu leen. d'accord te euh, maanaam chambre bi mu leen di loué benn chambre lay doon wala chaque jour ak bu bees bu mu leen di présenté. ñëpp benn chambre bi la leen woon ñëpp même vidéo lañ yore naxate boobu noonu am na si ñoo xamante ne meuble yi la leen jaay. da leen ne meuble la leen jàpp parce que dafa na benn belle-sœur am moo ko moomoon mi ñu états moom lal bi muy tëdd la ak jëkkëram lal bi muy tëdd ak jëkkëram la ko def te boobu day bàyyi dégg naa ba jëkkër ji dem liggéey mu koy def bu jëkkër ji demee liggéey lay ñëw ay nit jël leen dugal leen foofu des bon bi moo lay jëli mais man daf ma teg tal ba ma ñëw ba foofu toog man sama troisième mois dama ko woo doon ko ko waaj a joxaat carrément mun a ma noo xaaral naxate man du man man ba ma ñëwee ba si këru jëkkër ji samedi su guddi la ma jëkkër ji xamal loolu ma xëy leen di dem def plainte moo tax nag euh, léegi list boobu noonu nga xam te ne jëkkër jëkkër bindoon ñun si ñun dafa am ñu ko yoroon woo ñëpp ñu def benn groupe bu whatsapp mais bañ defee groupe whatsapp ku si nekk di wax nan la la dóoree si la gars am na si ñoo xamante ne ba ñuy dem am na si yenn rajo yu ñu dem dam leen ne lii dañ ko yóbbu test mënoo leen ko yóbbu feneen fu dul test yaakaar moo tax ñu ñëw fi parce que xam nañ ne yëpp fii lay leeree moo tax ñun ñu ñëw fi mën na leen da ngeen koy yóbbu test boo leen ko yóbbu feneen fu dul test tamit day nul rek fi di ngeen si am yaakaar te di ngeen si am lu leen leer man dara mettuwuma si nag lenn rek ma si métti étranger yu mu dóor. ñaata étranger la. étranger yi bëri nañu lu mu dóoree ëpp nañ cinq étranger ëpp nañ cinq étranger ñooñu ñëpp dañoo génn seen kër amuñu fu ñu jëm ñoom ko si ko si toogal lan la lay njëkk a wax ñoom xamuñu ne woon Sénégal nii lay demee ndax pays de la lay sama sœur Fatima Dieng. waaw ah. joyeux anniversaire. Fatima lay ñaanal waaw waaw Fatima Fatima ah moom mi ngi ba tey. Uh-huh. ah bon foogoon dafa toxu sax. yóbbiyee yal na yàlla guddal fanam. yal na yàlla dëgëral taxawaayam. amiin yaa may ko borom kër gu baax. amiin mën am yërmande. amiin amiin jot na de amul benn jox salaatu wasalaam déedéet alaaj bàyyi kooku sama doomu ndey la. ah kooku. waaw sama cadre boobu. yal guddal fanam rek. ak baax yal na yàlla dëgëral taxawaayam gi day jàmbaar la. ndeysaan madame Dieng. Euh, euh, Sumer. waa mi hmm. des na deuxième partie bi de. jeexul ni ko ba pare ñu doog ci wax. mu ko def dafa sax bëri. ça c'est trop. mais man faa naa ko. ñaa ngi réagir faa. waaw wallaahi. Euh, Sumer. kookal la. Ah, ak kan. Ah, am nga xar ah non non amaguma xar de. non sénégalais yi ku yoroon gétt boo ne ko am nga xar sax mu ne la amaguñ la mm-hmm. loolu ma mm-hmm. jaaxal. Mm-hmm. dama yoroon rek moo tax. dama yoroon ne naan yor naa. bàyyi li yow tamit. non non yoraguma xar de. ah. moom man yoraguma xar de. Hmm, mais loolu aussi tamit grand Cheikh Ndiaye Gueule Tapée 2 maa ngi lay siyaat di la nuyu grand mais yow wuyu ma hmm? mais booy mu ne amagul xar. nee na amagul de. Ah, nee na amagul de. waaw léegi loolu lan moo ci pexe. xanaa wutal ko. xanaa wutal ko. waaw mii man. jëlee xar fii nii ma toog nii nii nii nii nii nii. da ngay xool da ngay xool mairie bu signé caisse d'avance rek ku njëkk signé caisse d'avance rek. yow mairie kay doy na. mairie kay. maire yi kay na alaaji boo bëggee dégg dëgg ñoom moom nañ dem rek <laughs> maire yi moom nañ fi juge liñ naan France dégage waaye maire yi dégage garaaw xaru daaw yi dinañ ñëwaat xaru daaw yi la waaw ñooy ñëwaat de xaru daaw yi la xaru daaw yi la ah, ah, mais booy xar laa la bëgg a lijjantil fii balaa ngay ga wala da nga bëgg waaw garaawul kon waxal waxal ah déedéet déedéet déedéet non non def non non non demal. déedéet ah, nekkoon naa dem mel la lijjanti rek déedéet. lijjanti rek. Mm-hmm. Mm-hmm. garaawul. yàkkamti ah, bul ni garaawul déedéet. non non non demal. yaa ko dëkk bi daal. na la lijjanti <laughs> waaw. mani mani. waaw. garaawul demal amul problème. foo nekk nii. maa ngi nii rond point Seydou Nour Tall. ayca ah, doxalal ma gis. Voilà, merci beaucoup. L'actualité du trafic sur la 89.7. Tout à l'heure, nous sommes passés sur la corniche, précisément rond-point plat du souvenir africain. là pas de souci pour ñi nga xam ne ñoo ko bëgg a jaare mën nekk euh, surtout nag ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàll rek vers Course Pin foofu la amul jafe-jafe bu la neexee aussi mun ngeen fa jaaxe daal di intersection Bourélé jaare ko buntu ministère la santé yoon la yu bëri ñoo fay na ñi nga xam ne ñoo ko Euh, sur la VDN jaaree nag pont Seydou Nourou wala saa ngeen génne du côté de euh, point yo Bassier Poste Fann ñoom ñëpp ñoo fay pour laquelle faaw ngeen patienté laata ngeen wër seen circulation ginnaaw foofule aussi jaar nañu point Seydou Nourou Tall si point yi tout autour du rond point ça tranquille mën ngeen fi aussi euh, sur les deux voies Sacré-Cœur wala saa ngeen jaaree ko vers la Corniche foofu la foofu la amul jafe de

cette promo Tabaski avec Shell, c'est la meilleure Shell Fuel Safe avec sa technologie Dynaflex, nos carburants les plus avancés. ouest après Jollof Chicken rue Mohamed 5 pour ñu nekk centre ville ñëpp Jollof Chicken yegg si na Mermoz soo rombee dépôt Sotrac bi toujours xoolal ci sa droite di nga gis restaurant Jollof Chicken bu rafet ñu aménagé ko ba mu mel ni France ñu aménagé ko ba mu rafet musuma gis bi aménagement attention ça c'est Jollof Chicken ku koy inauguré ñu le vendredi juin Viviane moo koy inauguré Viviane dina fa ñëw 18h ngeen photo woog Viviane daal di dagg ruban toute la journée mën jën seen jolof chicken ce sera le vendredi 4 juin waaye nag Saint-Louis waajal leen le juin ñu daal di inauguré li nga xam ne moom moo di jolof chicken bu Saint-Louis après les maris rue Mohamed 5 Mermoz ce sera le vendredi 4 juin avec Viviane le juin ñu di dem nag fi nga xam ni moom moo di Saint-Louis ah dama ni jolof chicken ak neex ii dara bu ko fay. dama ne mosal seet jolof chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livré la. da a fàtte seen carte gab da ngeen war a yónnee xaalis ci nu mu gën a gaawee bul jaaxle express cash moo ngi fi ak application Ecobank mobile wala jees 22 22 jees mën ngaa dugg ci express cash defal sa bopp code buy mën a tax nga génne xaalis ci lu gaaw ci suñu ñetti junni point express wala ci gabu Ecobank yi ci Express lépp daal di yomb Ecobank la banque panafricaine. bu jaaxle woon na sa xel dal ku meroon na nga bëgg tey. dama ne la yéen waa Bawol day am ngeen gan gu rëy. ah waaw conférence la méga conférence la gëm sa bopp gi la ñu ne kañ la vendredi 9 juillet fan ci weeru juillet la ca Mbàkke boulevard Ndoyeen la ñu ne day ne dina juillet la de bu ñetti waxtu jotee quinze heures ca Mbàkke ca boulevard Ndoye tey li lée responsable mouvement gëm sa ya nekk ca biir Bawol googee yëpp moo xam Bambey la nangal ma Sadio Daaru Muxti Kayal ñu ne woo leen leen nag ci ndaje moomee méga conférence la bu gëm sa bopp ak président bu gan ngay dani yaakaaru 2024 ngir un Sénégal nouveau ay waay dikk leen ajjuma 9 juillet ca boulevard Ndoye ca ak fédération Bawol gëm képp koo xam bëgg nga caa am lu gën a leer wool Ibrahima Gueye superviseur ci 77 633 16 03 ah Bawol nag am ngeen ngeen loolu ma sa wax te sa tuba bu kaam tey yow yow yow laa Les plus beaux cadeaux sont toujours bien emballés. Cérélac, vos céréales préférées arrivent. Bien emballées dans un nouveau format spécialement conçu pour vous et votre bébé. Retrouvez tous les bienfaits des céréales naturelles, des vitamines et du fer dont votre bébé a besoin tous les jours dans un nouveau format plus abordable. Cérélac, c'est tout bon maman.

personnes agréées pour en profiter. Déwénati leen. Offre soumise à condition dans la ligne de stock disponible, valable pour les modèles concernés par la promo. Euh, carte d'identité am loo seen lépp preuve yëpp a nii sama portable vidéo yëpp a ñu fii seen famille ni ñu fii benn tali jumaay mu léegi nag dans tout ça yéen bi ngeen demee famille bi lañ leen leen wax jëluñu en charge pour fay leen yéen wala jëkkëram wala dara ñoom dañ na famille bi dañ ne ñoom am na si ñoo xam te ne boo demee dañ lay naan carrément xam nañ ne kii nii la mel dafa dëng xale bi papa ji xaw ma mi ñu Belgique papa ji ñun jot na jot nañ papa ji mais papa ji lu ñu expliqué def na carrément sama doom sikk na mais jëkkëram sikk na papa ji carrément loolu la ñu wax mais doo xam fooy taxaw doo xam nax jëkkër ji mi si wala nekk si mais ñun wóoruñu mais ñun lépp bu ñuy joxe suñu xaalis jëkkër ji toogu fa moo tax munuñoo wax dara jëkkër ji mënuñoo wax dara jëkkër ji parce que xale bi bu lay encaisse la lay encaisse naaj bu tàng jër la lay encaisse jëkkër ji du fa nekk naaj bu tàng jël la la encaisse ne la ñëwal nga ñëw mu encaisse la moom bu ko defoon benn nit ñaar nit amul problème mais xale bi gis na genre yi man xaw ma kan mais man fu ma ko romb dama koy jàpp dama koy yóbbu police ma ko baal. parce que kii boo ko bàyyi da koy di ko def dama bàyyi samay yitte ñëw fi ñun ñëpp dañu naroon ñëw comme ku si nekk euh, si suba ba léegi ni ñu dox si loolu mën a xaaral ma ànd benn étranger pour ñu dem kii mi ñu ne dañ koy jéem fu mu nekk amul fu mu nekk. d' accord mais tey bu ngeen calculer euh, comme comme comme euh, genre kii ngeen bëri ngeen bu ngeen calculer ñaata. calculer ëpp na 3 ñoo xamante ne luy wu leen mais meuble yi la leen jaay meuble yi la leen jaay jaay leen meuble yëpp ñëpp lu des lu dul jël seen meuble mu leen di laax ay daadaa am na si benn nit boo xam te nee moom ba mu ñëwee daal jot na ko gis singali ko mu fay ko kooku rëcc si mais ñi si des ñëpp mooy la parce jëkkër ji ba ñu ko laajee dafa nag njëkkoon naka def ay nit mu fay mais mi ñu ko ne woon di ko def mais doo si xam ndax kii dëgg lay wax wala ba ñuy jox suñu xaalis jëkkër ji nekk fi woon mais li ma si metti ba metti mooy da am na ñoo ne feuille blanche leen bindal ñii feuille contrat la leen bindal man mii di la mu bindal ñii mu bindal leen feuille contrat ba pare day signé génn carte d'identité na la am xale bu jigéen bu am taxawaale ñun seen famille fii benn tali. dem nañ mais boo demee dañ lay expliquer ay détails dañ lay wax ay wax yoo xamante ne naan la ñun dañ si nekk du si topp parce que yëgoon nañ lii moom daamoon demoon na di def lii mooy loolu xale xale boobu pour te dire ñoom dañ lay xamal ne ne dafa të xale bu teel a tëla ñoom loolu lan lay xamal carrément moto booy ñëw ñoom du ñu sawar sax di wax ak yow si yenn boo la waxee naan dafa yàq suñu deru famille ñun nag instant boobu loolu noonu ñun moo ñu dese ba léegi parce que ñun ñu wër ci di dem boo demee ñun dañ lay naan niñ ci enquête bi niñ ci kawam niñ ci enquête bi niñ ci kawam mais ñun dañoo bëgg mu leer moo tax ñu ñëw fii pour ku ñu ci dimbali. d'accord ça fait euh, ba ba ngeen commencé dem police ak ñëw ñu naan leen mi ngi ci ñi ngi ci enquête bi ñaata fan lay def. def na dix jours ak léegi dañ lay naan mi ngi ci enquête bi parce que kii. Euh, ñun si lu ñu xam kii mënagul génn réew mi parce que si biir wax jëkkëram nee na moom dafa mujjee obligé nangu kàddaanteem pour bañ mu génn parce que ba muy dem daka ba mu koy génn gaalam dafa téyewoon kàddaanteem ça veut dire kii doom buy nàmpal la yor génnul si dëkk bi mi fii man mënuma imaginer nag nga yor doom buy nàmpal di sàcc ay millions yii nii te xam te dégg naa ay puukare la ngay def di dem si xew yi di baatare dégg naa loolu rek la fi nekk parce que jëkkër ba nga ko waxee loolu loolu loolu la ñu expliqué daal man xale bi li ma la mën a wax mooy lan en tout cas xaw ma nu mu demee demee bu mujj man sax étranger yi si nekk yi nga xam ne dañ leen génn fu ñu nekk leen dimbali lii dafa ñaaw tey imagine tey ku ci demoon dëkk sonn sonn nañ trop ne depuis boobu ba léegi ñu ngi koy wër depuis boobu ba léegi man sax amul problème garaawul mais ñi nga xamante ne dañ leen génne seen kër amatuñu fu ñuy dëkk kii tey jii nii day wu day wëraanu di xool fu mu dem xaritam yi ku si nekk bu fanaanee tey fii bu suwaa fii lay fanaan moom fu mu doon liggéeyee dañ ko dàq école bu mu doon jàngee même chose instant bi ñu toll nii lii dafa metti imaginer loolu loolu daal la am daal ku ñu dégg daan ni ñu dimbali te yàlla tax loqutul ñu kii mu génn ñu yóbbu ko juste ñu juge ki genre yi waruñu leen bàyyi ñuy dox si dëkk bi te ñu fay nit ñi seen xaalis nit ñi delluwaat seen activité loolu laa am daal lu may wax. Euh, euh, vous êtes quelle quelle nationalité. Ouais, je suis comorienne je suis de nationalité comorienne et je suis au Sénégal ça fait presque trois ans. Voilà. Et du coup, euh, j'ai vu l'annonce comme euh, disait l'autre là dans, sur Facebook concernant cette dame. Du coup, je suis partie chez elle, j'ai visité tout. Et le, le jour, elle

que non, que j'attends un peu jusqu'à le 6 juin. J'ai attendu jusqu'à le 6 juin. Elle m'a dit non, euh, la chambre n'est pas disponible, je sais pas quoi, je, je sais pas quoi. Faut, il faut euh, venir récupérer l'argent pour aller chercher ailleurs. Et dès que je pars là-bas, je la vois pas. Je suis passée plusieurs fois, je la trouve pas là-bas à la maison. Je suis partie porter plainte. On a cherché, on a cherché jusqu'à ce que je me suis rendu compte là-bas chez, chez elle que la chambre a été louée plus de 15 personnes. On s'était retrouvés là-bas ce même jour. C'est là où j'ai su que finalement, la femme nous a arnaqués. Et depuis ce jour-là, on n'a pas eu de suite. Je l'avais croisée un jour à Bentali, mais avant que je sache qu'elle avait arnaqué des, gens. Voilà. Et depuis ce jour-là, j'ai pas eu de suite jusqu'à aujourd'hui. On est là à faire des allers-retours. Et comme vous le savez, la vie n'est pas du tout facile, surtout avec des étrangers étudiants encore. oui, je suis étudiante, oui. Mm. Et du coup, je suis, on est là, on ne sait pas quoi faire. Parce qu'apparemment, on se dit on peut peut laisser la police mener l'enquête, mais depuis jusqu'à là... Elle l'enquête que vous voulez, concrètement. <clears throat> Actuellement, je pense que la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est vu que c'est un, radio, c'est pour pouvoir passer le message, pour je sais pas, peut il y aura quelqu'un qui va pouvoir nous aider à trouver cette, cette dame 98 kay. Ah. yàlla may na ko de. daa ah. bari ko def sax. daa bari ñu ko def sax. Ah. yàlla may na ko de. may na ko moos. may na ko moos. ah bon. laa ji lii wàllug may la. Ah, waaw waaw. mënoo mënoo ko de li mu def nii de mënoo ko. waa léegi féministe bi toog fii nag la l' avocat des des femmes. loo ah, kii de xam ne ab sàcc la amal affaire yàlla kay damay défendre koo xam ne dañ la tooñ waaye da tooñ ay nit. Hmm. ah kooku moom mënuma ci yow dara. Euh, man nag man nag ah! tey fi nekk nii. Hmm? waaw. Euh, bu ma bokkoon ci victime yi. Hmm. Hmm. jëkkëram laay porte plainte. ah jëkkëram nag alaaji lan la def. ci part de responsabilité. bu mel na. waaw gën góor mooy Fatou sàcc. ah déedéet. non no jabar dañ koy yilif ma alaaji. jabar joo xamante yoo xam ne kii day day nee day luye ji appartement déjà day luye ji dem di luye ji ay appartement. ah waa mais. non parmi nous les yéen yéen yéen les góor. Souleymane Thiam naa nee na contrat. dañ koy dem légaliser ji nee na ñii dañoo dañoo nelaw. mais mais vous les góor sax kan mooy accepter. sa jabar ni day yëngatu ci wàllu immobilier te nekkul ci benn agence nekkul ci lu crédible lu muy xëy di lambar lambar ànd ak ay góor di wane ji appartement. waaw ban góor mooy accepté. bàyyi sa ku muy nàmpal. la fait nga accepté ko parce que yaa ci biir. Ah, loolu noonu alaaji. waaw mënuñu mënuñu laa mënuñu laa mënuñu laa setal ni yow. Euh, bokkoo ci ci complice. doy moo ni complice du mën a jëkkër de en tout cas ñi mu ko def daal moom. loo ko mënal. ñi ngi ñi ñi ngi sikkal jëkkër ji. ah waa mais non defal ndànk nag moom moo sàcc wala jëkkër jee sàcc. man bëgg man bëgg dama ragal da koy bëgg rek ko protéger. dama laaj dama ni lan moo kan mooy nangu ci ñun sa jabar xëy di lambar lambari ji di jox a ji appartement ak i contrat. te nekkul ci benn ku ñëw nga ne ko porté ko ji benn bureau boo ko mun identifier. ah jëkkër ji kon rafet na xol de walaay kon rafet na xol. déggoo waa ji li mu wax nee na boo ñëwee moo naan laan demal nga porté ji ko plainte. waaw ah, foofu yàlla. ah waaw mais nag alaaj nag nañu waxante dëgg nag de alaaj nag ji aussi tamit yéen yéen a. bilaay léeg-léeg ñu am nattu rek da sa vie. jëkkër ji jëkkër ji tamit yéen yéen a ko bëgg kii mais jëkkër ji lan la ci ah. man de xale ba muy nàmpal dem ak moom rek ah lu ba du dem nag ñaar fukki doomu aadama ak juróom-ñett alaaji. xanaa ñooñu ñëpp nag mënuñoo waxandoo lu dul dëgg. ah kii de nee ma ndaw saa ngi seen kër. seen kër fan. Grand Dakar xaw ma Grand la wala. Ah, kii de dane ma ma ngi seen kër. kër jëkkër ji wala kër euh, famille am. seen kër daal la ma wax. non non non famille bu mu bokk famille bu mag la de. waagu ñaay. waaw foog naa waagu ñaay la wax. waaw. man de day xam naa ne mënatuma wax waaye. ah man de ala jëkkër ji nga ci bëgg a dugal d'accord ma ci. ah. en tout cas ñoom victime yi day. génnewuñu ko ci. waaw man de li daa yomb. man. wala alaaji wala sénégalais yi ñuy déglu. ban góor mooy nangu sa jabar xëy nekk ci wàllu immobilier nga xam ne mu ngi ci def lu leerul nga toog muñ ko noppi waale ko te mu wóor ne am na bis boo xam ne bis bii bettu la. Mm. parce que ci ci li mu nekk jubul. Mm. nga toog garde ko noppi waale ak moom. Mm. bàyyi ko muy dox. ah déet bul ne da koo garde noonu rek alaaj di wax ak moom. dégg nee na ma demul fenn mi ngi fii benn tal di dox ay soxla. ah, ah baax kon kon ah, jëkkër ji jëkkër ji alaaji lii mën na nekk nattu waaye buñ ne mooma. waaw nattu ah nattu mais xanaa yoru xaalis nit ñi tamit nekk fi benn tali dox ay sax xanaa nit ñi dañuy kii rek mais ah, man de am yoo yoo xam mun mu cee ànd waay te police HLM ne jot na vingt huit plainte wallahi am yoo xam ne nga nekk fii di dox nit ñi di la gis muy doom lool moom mënu ne muy rakk muy jabar képp ku muñal nit ki ak njubadeem gu muy def ci ay nit di lekk seen alal mhm. di ko sàcc wala arnak wala njublan mm. nga yilif ko mbaale ko complice nga. Ah, na. na la jaral moom li mu ko jaral ba ngeen tàqali ko gis nga alalu jàmbur gis nga alal dafa sax ci xol man du ma muutuwaale nit muy sàkkal alalu jàmbur pexe. Mhm. nañ bàyyi yooyu ah. ah en tout daal en daal xam naa ni daal. Hmm. ah man de dëgg-dëgg fa yàlla ah jëkkër ji de. jëkkër yi daal nattu moom mën na koo dal rek waaye nag bëgg a yenu mu mi moom yen ko ko moom. Hmm. ah. ah. ah. Mimi lay Maxtaar maa ngi lay nuyu ah man day man day alaaji ah xëj na kon man ak yow. Hmm? na mën ak yow suñu gis-gis yi kon bokkul. dafa neexul de. ah. waa mais jëkkër ji lan la def lii mën naa nekk nattu chaque jour nga nekk sa soxna mu def lu jar. waaye du chaque jour ngay nekk sa soxna muy sàcc tamit di luubal alalu jàmbur. ah de du luubal alalu jàmbur ah moom waru cee bokk nag. luubal alalu jàmbur moom. Ah, muñ muñ moom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. ah luubal yi daal tontu yeeg yëpp daal moom xam naa ni daal. yëpp mën nga xorom. waaw yaa moom daal moom lépp mën ngaa muñ alaaji. waaye dem dem jubla ngi nit ñëwaat. ah déedéet. ah déedéet. ah, ah. ah, ah kii nag moom daal la bàyyi. man daa ci xol waay. waaw baax na en tout cas na bàyyi xel de. waaw ak France démb lu la neex defal. <laughs> laay lig nii moom dina ñëw. non maa kontaan ci Suisse. <laughs> jàpp ma de ki ma bëgg France toog rek moom. <laughs> moo taxit moom lañ mujj jiin defet ba sax université démb alaaj ma nga mel ni tulleeg mal yii diw toog na gi mel ni tulleeg mal defet bi lañ jël yéen ko ko <laughs> comme que dëkk boobu ñu amee victoire sax alaaji sax match amical match amical bu France amee victoire sax nga gis mu dóor ab tiwit di di di sant mbokka ma nekk foofu France xale bu ndaw bu xonq bi ñu fi euh, talaata gi la ñu. <laughs> gone gi ñu fi talaata woon. <laughs> waaye moom eh, eh, yow wax xam nga bisu talaata lañ ko talaata. waaw bisu talaata lañ ko talaata di bisu talaata. décidément. su altine nag lañ talaata équipe bu équipe bu grande gueule. <laughs> waaye match bi tey la waroon a nekk. talaata yi tey jii talaata laat leen. <laughs> ñu euh, waaye nettali gi talaata la tombé c'est bien baax na. xew moo gis nettali ga ca ëllëg sa la. Mhm. baax sax xew ak lu mu rëy rëy rëy rëy alaaj. nettali baa baax ca ëllëg sa ba ci ba ci bi ñu wax ni sànq. waaw après njublang bi ñu ngi waxtaanee la soog am sànq. waaw mu mhm. tombé mhm. talaata. waaw tombé talaata. ñii dañ koo talaata. waaw moom itam talaata woon na leen. waaw waaw da leen a talaata woon ñooñu bàyyi ko. match amical sax bu France footballé ba gagné muy muy muy muy 98 gërëm. borom muy gërëm mel ni xa mel ni xaru tabaski mu dellu si waat. day dellu si waat waaye ba ko. moom la mu triande sax amagul âge boobu. non non non kii kay bu amee ngeen fukki at moom. amagul 28 ans. triande. Ah, ah en tout cas borom këram day. borom këram day. man daal waaw gisuma ko waaye am na lu ko mitti de xanaa. parents mi nag. man daal li may digal borom eh. mooy. bu fi wax de. ak njuba di ak njuba di deesu ci far nit. bu ko faroon nu muy def dafay baax. ah nooy def. dégg ko faral moom li ngay li ngay a dégg. ah dégg nga ah loolu bëgg nga woo ko. ok toll ci moom. wallaahi yaa may nettali waaye ba mu ñëwee wax sama maam ne ko. sama jabar ji mante naay. dafa mu mos a ñëw wax yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko sama jabar ji daal. góor yi dañ koy lëng rek. <laughs> daf ko teg loxo du ko teg. dañ ko teg loxo ko teg mu ne ko fay fase ko mu ne ko koo fase mu ne ko mu ah bàyyi ko mu ne ko koy foto noonu. dafa am benn. logiciel boo xam ni. Hmm. boo boo jëlee boo jëlee. làkk bi boo boo foto boo benn làkk nii. mais mm-hmm. nii boo ko jëlee boo ko scanné nga koy ci arab wala anglais maanaam boo demee réew moo dëkkul gis tableau ak affichage bi xamul liñ ci bind naka naan nii rek léegi arène ji léegi arène ji teg ko ci arab <laughs> le quotidien arène ngay ngay kii di suñu naataangoo ko moom di kii nduur ah. léegi photo ko photo ko léegi nga wax ñu arène arène duudu ba xasaar daal gis nga may may may may tante benn expérience wuy ma wuy ma alaaj <laughs> léegi léegi kii lambitu couleur bind ko fii nga foto ko <laughs> sotti ko ci arab arit dundu ba ak lambi tukulóor sotti ko ci arab quatre-vingt-dix-huit la xale bi juddu alaaj kii France mi ñu talaata démb bi muy jël coupe du monde bi eh, kii kii am na lien ak France de xale bu jigéen bi waaw année bi France jëlee coupe du monde ba alaaj boobu la judd. France ñu éliminé ko coupe d'Europe deux mille vingt bii. waaw ñu xëy tot dem ñëw fi. bisu nit li ga ñuy nit li ay mbiram. ndeysaan mooy xale bi de ndeysaan dégg naa famille bu baax la bokk. ah mujjoo moom laa lay wax. famille bu mag bu baax. ci yàlla yàlla mën a tege nattu. sànq moo tax ba ngeen di wax kii mën leen xalaat leen parents mi aussi am nan lu leen métti de. Tidiane Faye Diobass FM. Jobaas ñu ngi lay siyaar di nuyu waaw Jobaas. waaw Jobaas FM ndeysaan suñu partenaire lañ de. ah. Mhm. ah dañuy reprendre signal xanaa. waaw des fois kooku la. benn jour na nu yónnee benn tës bu doy sax. ah Sëñ Tidiane ko enregistré woon sax. Aline Sarr. may dégg naa fa rajo bi reprendre tës. mag hmm. mu yaru. rajo bi tudd naan may mun a. FM. rajo ba sama ginnaaw kër la ne wala su ma taxee sama sama kaw bâtiment moom studio rajo dañuy jàkk dañuy taalalante loo naa mu sali mënu ko sali. am na animateur bi nag maa ngi janoog El Hadj Mamadou Mansour Diop <laughs> mais wuy ma. Uh-huh. mais samedi bu ma ñëwee noonu bu ñu añee ba pare alaaji nga yóbbu ma ca rajo eh. waaw ñu dem ziyaara a. waaw. ñu dem ziyaara eh? waaw waaw. dëgg na. ñu dem ziyaara ji may mun a. nga dëgg de. Eh, kii du kii Angélique Manga. waaw. moom la. waaw Mantoulaye. dafa ma moom mooy kan mooy kii politique wala. kii la Angeline Manga. non bi nekk RTS. waaw kii Anna. Anna go Anna na Anna Gomis say député ba doon si karal waaja di. kii tamit foog Anna Gomis waaw. kii député kii kii kii dugg ci politique de référence. non non non non. keneen ki non am na non. RTS ba ñu dugg ci politique de sama copain bi sama doomu ndey ci politique bi. ki doon def émission kii El tudd kooku ma génne waa RTS. Thierno Thierno ma génne. El Hadj RTS Francisca RTS Jamil RTS. jegeen RTS Fofana RTS Khady RTS Koyta RTS Al RTS Elimane RTS Ourey Thiam RTS Modou Thior RTS Yolande RTS Sara RTS Assane Gueye RTS Soda Dramé RTS Khali RTS Mbaye Peex nekkatu fa mi ngi fii seen di RTS Yolande RTS Mohamed Gassama nekkatu fa RTS Omar Seck na RTS Abim Mbaye RTS Binta Wage RTS Daouda doyen RTS DJ Prince RTS Dominique Ndéki RTS Elisabeth Ndiaye nekk dafa RTS Elou Faye RTS Fofana Seck RTS Jules Diop RTS Khadim Samb RTS Khady Kamara RTS Khali RTS Lay Guèye RTS Michel RTS Ndiac Ndiac Ndiac RTS Ndiac Diop RTS Omar Ñing borom mbëkk ba RTS Ouley Bale Pereira RTS Oumou Balde RTS Oumou Ndour RTS Ourey Thiam RTS Saliou Seck waaw man xanaa ci télé bi laay mujjee. yow sa répertoire bi 98 nga ko jënd nga ko bind. RTS. sa répertoire bi 98 nga ko bind. non non non damay seet damay damay. yaa xam mbay ndaw si yaa xam mbay. yaa xam sama xarit bi. waaw Yaatma Lo RTS Saliou Seck RTS Simon Meledge. su eh, ala kooku eh, eh, ay xam ko ay Adja Dior Dramé. sunu xarit bi ndem si yàlla Gisèle Malou ndeysaan. ndeysaan ak moo ñu bëgg oh, Gisèle Sidi Bouya Sidi uh-huh. Bouya. Xaadim Samba dellu si waat na Samba Mangane. Samba. Eh? suñu xarit boobu Omar Omar commercial. kii waa mais man ki may wër RTS gisuma ko. si Thierno ah, Alassane Sy la. Francis Ka Diafonde. alaaj bindal RTS Thierno Alassane Sy Thierno Alassane Sy. ñaaña Sidibé non Amadou. commercial Ibou <laughs> loolu Patrick moom syndicat moo tox Tidiane Bari. Penda Mbaw. Eh. Fama Diouf Mama Bocage. la moom. waaw bu baax. bàyyi naa. ah non arrêté naa. fooy dem non arrêté kii nee na xam nga lan moo metti mhm. dëkk ak kuy sàcc. dëkk ak kuy sàcc. waaw kii nee na Thierno Amadou Sy mooy waaw Thierno Amadou Sy. Mm. suma xarit boobu. Euh, suñu xarit bi nekk Sud Quotidien yi. ñoom kii nee na fàtte naa Michel ba waaw. Hmm. sama suñu xarit bi Ngom. waaw Ameth nekk Sud Quotidien. fii nee na Madior Silla. a Silla monsieur le maire kaay toog nii. ah waaw mais Alaaji. léegi lan mooy bexe bi yow pour ñu tàggatoo Alaaji. RTS Babacar Diagne. waaw Babacar Diagne sama sama taay yow laa yow ah. léegi lan mooy pexe bi yow ci kaw. Anne Marie Gomis sa tur tudd noonu. Anne Marie Gomis. waaw Anne Marie Gomis la. mel ni Anne Marie Gomis. waaw Anne Marie Gomis la Anne Marie Gomis la alaaji. waaw dañoo débauché grand Racine Tall non non dafa retraité da la fay yóbbu nii nga am ba ñaari weer mu bàyyi nga am problème. <laughs> retraité na bàyyi ba ku bees ñëw. dañ <laughs> bàyyi gis nga Racine kay. gis nga na yàgg na man situation ndaw waaw Anne Marie Gomis la. Anne Marie Gomis mooy suñu xarit bi moom la. ci famille bu baax la bokk. waaw. ne complice. d'accord mais dama ne. waaw. yonent bi sallallahu mhm. bi kilifa sàccee. Mhm. ñu euh, sàkku ci Zayd mu dem def intervention pour ñu ñaan ndax kii mais yelloowul ñu dagg loxoom yonente bi mer na mer boo xam ne jour boobu mosuñoo gis kanamam mel noonu ni bu fekkontoo ni ma sama doom moo dagg moo sàcc ñu dagg loxoom moo dagg loxoom gis nga natt bu la dalee nangul rek da nga koy nangu te assumé mhm. ab sàcc ak njublan kenn du ko fat da nga koy mhm. dénoncé xeex ak moom mhm. bu dee ci famille bu baax la bokk loolu mooy définir mbaax gi nekk ci seen famille. nañ ko ñaanal certes mais nañ ko wan ko bu ñu ko fat bu ñu ko fat c'est vrai de. ab sàcc kenn du ko fat njub lan kenn du ko fat sinon complice nga ciy ne. même bu dul complice ba sax da ngay am. Ah, njubu da ngay am njubu contribuer ci li indi ak njub ci réew ma. mais dëkk bu kenn sàcc loolu ñëpp riche. dëkk bi bu kenn sàcc ñëpp riche. famille bu baax bi amul solo de. jëf ju baax mooy définir famille bu baax mbokk yi bu ñu ko fat ndaw si ñu nekk ay victimes ñi fanaan ci biti moo leen gën ah ñi woon ay terrasse ñu dem ñu bàyyi fa ñu dëkkoon di fanaan ci biti ci terrasse bi moo leen gën dëgg romuti nopp nee na këram ci kaw ci terrasse bi am na ñu fay fanaan dëgg romuti nopp am ñu fuñ jëm seen xaalisam ci moom nañu ko wane mu génn xaalis jàmbur bi bu dee ci famille bu baax la bokk nañu nañu assumer seen responsable dajale xaalis bi fay victimes yi waaw dañ leen war a fay nag alaaj war a fay nañ leen fay rek bu ko defee wax ji euh, retiré plainte yi yëpp daal di daal di daal di ah. jeex waaw na leen ah, fay na nag leen fay ah. de waaw oui leen fay rek wax ji jeex leen fay wax ji jeex jëkkër jaa ngi fay jëkkër jaa ngi fay moom certes nañ ko dénoncé de mi ngi fay ah loolu ma wax de sama bàjjen bi ñu ne moo papa ma bokk ndey ak bàyyi kii ak ni mu foore hmm. ak ni mu moom de ndaw si waaw ki ne wax ne bàjjen moom bàjjenam la daal maanaam suñu bàjjen bii nii ak papaay xale bu jigéen bi ñoo bokk. Hmm? yal na yàlla dooli jàmm ci réew mi rek. amiin amiin. yal na nu yàlla suturaal. amiin yàlla jàppale. yal na nu yàlla aar te yal na yàlla taxaw. amiin ji alaaji it yal na yal na yokk. amiin daal feebar yal na yàlla fëgg seen bopp. amiin ñu jiitu yal na yàlla xare àjjana. ñu caabi feeti ginnaaw yal na leen fi yàlla. amiin amiin jërëjëf ñi nga xam ne dañ doon dañuy sayte amuñu doom it yàlla leen yàlla suturaal may leen ay taxandeer famille yëpp a baax waaw famille yëpp a baax de ah famille yëpp a baax bëti dañ koy dénoncé famille yëpp a baax famille boobu mag nga bokk alaaj te yow defoo lu jub daal tuutil nga famille ba waaw dëgg la yëpp a baax rétrogradé nga famille ba dénoncé de leer laa la dénoncé moom daal cooli cooli daal mooy na fay xaalisu jàmbur Mm-hmm. na ko fay rek. jàmbur yi. jàmbur yi voilà. na fay xaalisu jàmbur yi. alaaji wax di jeex. wallaahi yii ñuy def nii yëpp jaroo ko. wallaahi. waaw ah, dégg nga xool xoolal lii rek. yow benn site. waaye site bi tamit gaaw na di. location du studio Moussa Souleym 4. une fille de 23 ans escroque 28 personnes sur Facebook dégg nga loolu. yow tës baa ngi nii dem pareeguñu yow site bi nga ne ko cas. bind ko def na bokk bokk ba suñuy kàddoo ne ci biir. booy fekk booy yéen itam a liggéey itam booy yoo mën a ah, yàlla yàlla dolli kon jàmm ci biir réew mi rek kilifa politique yi kilifa aada kilifa diine yàlla yàlla dëgëral sa waay réew mi yàlla na fi yàlla dolli jàmm ci barki yonent bi alayhi salaatu wasalaam amiin yàlla suñu borom monsieur le maire kon ñëw na Mambay Ndiaye yaa jël Mambay Ndiaye turandoo Mambay muut mbaa mot bu yeboo boo ñëwee fii na nga xam ne ngay wax <laughs> sa ko fi wax keroog maa ko fi jël nii mu ne muut mbaa mot xamal li ngay wax dégg nga loolu Simer Alaaji Simer Diop kon mbokk yi moo nekkoon ci xarale gi mantulaay ci bundooy Lukaku ñu ngi nii nag dend ak man miin màkk miin miin natul mu nawara sama xaritu maam baa ngi nii le procureur du peuple ana kan la dendal sëtu ku tedd ki ma maamu barrière or ba ca Médine bandi ax si mbànni xure Ahmed Aïdara Karara monsieur le maire de la ville de Guédiawaye di leen jox kon dig dajee suba insha allah KFC moo leen doon may seen émission Teuss Expresso moo leen doon may seen émission tës l'écran meew bi nu gën a taamu meewu nag pii moo leen doon may seen émission tës assurance la providence bi leen indil yéen chauffeur yi produit bu bees tax di assurance perte emploi chauffeur moo leen doon